asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku amateur yi ñi suivre Sarr TV site internet Sarr TV ñu ngi leen di bëggee di leen ziar tey nag ñu jàkkaarloo benn jëm joo xam ne presque lii ma koy def loo tey mosu koo def waaw ñu dëkk diwaanu Touba nag nekk ndongo daara jàng bu wàcc jàng xam-xam bu mokkal ko nekk fii ci diwaanu Grand Yoff mais tout le temps daan naa ko wax ne xam-xam bi nga yor nii di ko nëbbatoog moom loolu amul njëriñ li am solo mooy nga génne ci askan bi leeral parce que bo gisé ñu jangal la xam-xam moy nga génn tay dimbalé ci jaamu yalla yi waaw kon donc li ni pour nga def ko nekkul lo xam ne ka wara bañ parce que lolo taxone nga jang xam-xam ba yalla may la bu mu seigne mustapha nak ñu xuus ak moom ci waxtaan bi ci karam seigne bi niya ziar naa Cheikh ñu ngi lay delloo ziar baax mbaa ci jaamu di la nuyu di la ndokkeel baax lii moom xanaa gulee tey def ko daa na sa jëmm ji mu la xamul lu ko def rek mm-hmm. waaye lii moom daanaka am dama ko bëgg a bàyyi ba ci kanam kanam rek Ah, bisimilah. mais si bi nga nekk xale dugg ci ndongo daara ndax sa jaar-jaar. Mhm. mun nga maa fi nga jaare boo fi nga xam ne ci lañ la ne bagage yaa ngi noonu mun ak sa daara boobu. waaw xanaa bi ñu teelee masjid alxuraan jàngal alxuraan. mooy rek gëstu tamit ci àll bi dem fi fenn Mali ay Niger ay Burkina dem fu bare bare fi gëstu ci lasraar ba yàlla doon ñu toog ci yooyu ci lu wéer a wéer a wéer yoo xam ne loolu fukki at ngeen ci ren daanaka ñu ngi ci yëngut de am na kilifa yu bare bare ñu amante ak ñoom. Mhm. te yaa ngi fàttaliku fan nga nga xam nga lépp. ñun Touba Touba lañ defee lépp. Touba Touba lañ defee lépp lu ne xam Touba lañ ko xamee. Mhm. waaw Touba lañ jàngee Touba lañ defee lépp. Mhm. lu ne xam rek Touba lañ ko xamee ci wàllum bind ak maas ak lépp waaye nag ginnaaw gi tamit génn nañ caale bi gëstu ji. waaw loolu dafa doon génn caale dem fu mel ne Burkina Faso Niger Guinée Bissau Gambie Mauritanie fu mu ne gëstu ji xam-xam mais yàlla dogal tëj nañ ñu war toog nañ ñu daal toog nag Mm-hmm. waaw yoban yóbbante ma it parce que da bari ñu may di ma laaj loolu mu ne ma daal man daal faru rek mu ma ñu bari ñoo xam ne tey lépp lu ñuy waxtaan ak yow dañ lay naan man sax ma am jëkkër ndax lu ma ni nii ak nii même ñu góor ñi dañ koy jooy di ko mu leen lu bari bari bari bari wa far rab moom yoroon yi bagage yoo am ne jàpp na ne maanaam képp ku fi ne yeewoo Ndakaaru gi di ñaan jàpp na ñoo la ci man am na ci loo bu nga bëgg su ma jee nga sangoo ko incha allah ci kàttanu yàlla ba ñetti weer yi nga sëy loolu dañ la jox dañuy wut ab trois mois foofu eggee daan la mbur nga sëy ndax xam naa ne bu dee ki bëgg soxna tim yow nañ ci bagage xam ko defee léegi nga jëfandikoo ni ko waxee incha allah ba ñetti weer di nga am soxna bu soobu yàlla ndax fay rab moom rab day eh, li muy yàq rek rab fi ne mën a téye nit moom téye ko am jëkkër mën a téye nit fi ne am doom rab li muy yàq day bari waaye yow nañ ci bagage xam ne maanaam bu incha allah maanaam su ma ko jëfandikoo rek moom li ñu am résultat dem sam ne yàlla incha allahu réew mi jaxasoo ay dëkkandoo léegi di liggéeyalante mhm. ndax mun ngaa garanti nit ba lépp ko waay liggéey mhm. wala sulaat ci wàllu palaasam soit ku wàllu jamono bi léegi boo xam ne léegi presque lay gën a jege ñoo waaw bu fekkee ne ci wàllu kaaraange am na ay càngat am nañ càngat yoo xam ne képp ku nga jëfandikoo nga sangoo ko man at na suñ seen xeet la dara am nañ ci xeet ndoom yoo xam ne koy liggéey ndam yoo xam ne dañ ko wóol lu mag ak ndam yoo xam ne ay alfu bu wet yoo xamante ni maanaam képp ku ko jox nga tàkk ko incha allah même adduna sëpp na sax di la xeex du la mën dara dem soob na yaram ba ci boo dugg oto sax oto bi ñëpp faat na bari daan wax TikTok ba nit ñi xaw leen a loolu boo leen bëggoon a conseiller ndax hmm. kenn ku ne bu yemoon ci xam-xamam est-ce que dina hmm. loolu am wala bésu jàmbur taxaw nga ne diw mooy daan wala diw mooy daan wala nga dugg ci ay affaire politique di ci wax chaque jour ndax hmm. ñooñu boo leen bëggoon a conseillé ndax dafa tax léegi sëriñu ndakaaru tey koo waxate sëriñu ndakaaru mu ne sëriñu ndakaaru du sëriñ ndax ngir rek ñuy wax chaque jour ñu leen di yóbbu vaar waaw xam nga àdduna moom kenn ku ne su tolluwaay ak kenn ku ne su gis-gis yaakaar naa li fi jaar fi bakk dem am na loolu toogee waaye li suñu tooy def ne yaa rabbana basir salaamayil xabib bi xidmatin wa kulla saalihin labit maanaam baatin ku ko am doo ko foowe te ji ma jàpp ne ñàkk fayda mënul paas maanaam di seet di wax ci làmmi jàmm làmmi la da nga ci politique xam ne litre litre bi nga wax moom sax xamul la xamoo ko mën naa lu mu ko defal yàlla amaan nag léeg-léeg ma tëdd guddi ko te yàlla nit ñi nag tolluwaay bokkul hmm. mhm. tey maanaam tey bu ma la laajoon a Mhm. ci wàllu li ngay liggéey tey mhm. ndax yow ndongo daara nga yaakaar naa alxuraan ngay liggéey waaw alxuraan ngay gis lu tolloog basan mhm. doo naa ko fi mu jaaxal ma lool balaa joon ne yàlla xam na ne maa ko bind waaw xam ne day bind bu dee bind moom a mën na ko ca def lu def ko mën na ko ca def bu fekkee ne nga xamante jin maanaam moom dafa sonal nit ñi trop trop trop trop trop xam ne yàlla dañ cee mooy ba xam li moom ban def nañ ay yoon yi yoon am ci résultat li may def ni góor gu néew kàttan loolu man ma koy faj ci sensé moom kàttan koy faj ci sensé da bu mënu xam dara tim boo ñëwee incha allah am na ca def moo joxee moom di nga ubbeeku dem som ni maanaam rab ko jàpp ba mënutul dox wala mënutul wax wala mënutul am dara su ñëwee da nga ko tàggalam ci sensé incha allah foofu mhm. waaw buñ ci jógee am na beneen xeetu feebar yoo xam ne léegi dafa xaw a sonal nit ñi mooy néew kattan googu nga wax. Mhm. jàpp nga ne lekk moo koy def wala lan moo koy def. waaw néew kattan dafa am ñaari mbir am na loo xamante ni maanaam lii ni woowee koy def mhm. dafa ne ni boo jëloon Sénégal yi fi ne cent pour cent soixante pour cent yi ci bëree bëri xale yi koy def am na ñoo xamante ni maanaam fi ne dañuy lekk dañ ñaar daf koy def wala tam sëy bu bëri tam day def day def ni néew kattan waaye lu ci ma nekk da koy xool su ñu xoolee ba xam ba xam la la lay dëgg-dëgg mbir ma rek incha allah dana ko mën saafara. zeka ni ne xam daf ko dafa dafa xam xam si si si di dee dee nga jox point de bu ko jëfandikoo insha allah si di bi taxawat taxawaat bu soobee yàlla. ci walu bind la wala ci walu garab la. non lolou mom garab la lolou mom ci garab la du loolu du bind garab la. garab garab lay nek waaw. legui bi nga voyager pour wuti xam-xam. Mhm. fan ban dëkk nga dem ci dëkk yoy mu jaaxal la ci sa xam-xam nga ne li dal foofu mo ne am waaw lolou nak dafa melni mo di ko dalé Bogo hmm. diggante frontière Burkina Faso ak Niger. amoon naa fa genn gu naan Yaxya Kàmbaay parce que moom wax dëgg yàlla jomb na ma ci xam-xam am na xam ne moom moom ko dund woon ak moom dama gëm ne xam-xam egg na fi parce moom jaax jaaxal na ma mooy yaakaar naa deux mille deux mille treize la loolu wax nii la waaw. waaye dem naa ci Bogo dem ci Niger dem ci Burkina dem ci Mali dem ci ba Guinée Bissau Guinée Conakry dem ci Gambie dem ci Mauritanie yëpp yëpp dem xam-xam dama wuti woon. ginnaaw gi te bari na xam ne gis naa Saalum bi ci àll àll àll Saalum bi. mais tey jii ñooñu nga dem xam nga ñetti dëkk boo ci tukkee. am na dëkk boo xam ne bi mu fa egsee ci nga ne fii moom laa yemati parce que li ma fi gis moom doy na ma sëkk li ma jàng moom fii. laa yemati delluwaat Sénégal. waaw loolu mën naa ne Touba la ma dale wala Ndakaaru gi ko xam ni bi ma wëree wër wër wër ba toog daa ko xam bi yàlla dogalee te maanaam. muy ku yàlla may ci la asaraar hmm. yàlla dogal yàlla mu gis ma bëgg na ma foom dama damaa jox kàgg ma jël lu la neex la ma soxla la ma daan wëri ci àll bi lépp yàlla ma gis ko moom yor ko wax dëgg yàlla moom ku baax la it xam naa ne bu ku mos a jaay naa la wax turam incha allah ma jàppale tam ci li ñu nekk wax dëgg yàlla hmm. incha hmm. bu ñu ci jógee dafa am côté boo xam ne ma la ko laajoon te développement bi des des na tuuti muy maanaam ñi dugg ci wàllu politique. Mhm. nekk ay sëriñu Touba yoo xam ne ne maanaam ñoom ay waa Touba ay mbakke mbakke la ñu soit que mu jege siñ bi lool. Mhm. waaw au lieu ñu yem ci li siñ bi daan def ñu dugg ci mbirum politique te mbirum politique léeg boo ci dañ lay xeeb léeg-léeg mbirum làmb. waaw loolu moom damay wax ne mooy mooy ñàkk xam li la sama bàyyee la suñ coow dana woon sama waa kër buur duñ dàq lu muy lekk duñ dàq lu muy naan duñ dàq lu muy sol te kuréel bu teg leen. non damaa jàpp ne ku fi mën a bàyyi suñu tubaab nekk si politique da ngaa xamul li la sëriñ defar rek te tolluwaay bi ñu bokkul ndax mun waxee duma politique yow xam nga ay yi fi ñëw ci politique yi mooy ñaan la yàlla seq ñoom yi ñaan yàlla ñu mu jox cent de millions waaye nag ñaan laa far tam sans far doo xam te yàlla sama formité kenn waxtu yàlla animité kenn man waaw mooy ñi fi nekk ñi fi jógee ñi fi waaj ñëw ñi kenn la ci ànduma suñu tubaab daal ànduma kenn a ndax dafa am ñoo ci xam ci ndaw ñi gëmuñu galaay am ñi jëm galaay réew mi jaxaso bu kenn xametul bopp beeg genn bi su xele mooy yor ab réew loo bëggoon a conseil tey xele yi ndaw yi surtout ñi jël gaal gi tamit ci lañ bokk ak ñeneen ak ñeneen waaw loolu moom maanaam day wax ne suñu fàllu mbàkke mu baax ma dana woon ku gëmul xar foofu xar la foox te bu fekkee doo awlu sos ngorom ñaan la ëwlu bi awul ma awul ma awul ma léegi ñu ëwlu jox ëwlu bu mag bi gàllaaj moom ku ko gëmul rek danga niwut tolof tolof dañuy wax ne dañuy daal li mu ne wax daal dañuy daal leen daal xam mën leen ko baaxee daal muy lu wér mu ne wuti kaaraange kaaraangeem képp ku yàlla mën na ci ndaw nga war ko man a am wuti ji ko parce que boo ko wuti wut rek maanaam bis moom réew mi day gën a yëngut loolu daal mën naa ko baaxee ndaw ñi ku a wuti kaaraange ba wuti kaaraange daal wuti musalaay tey ñaanlu mhm. ñu nag ci président bu bees fi réew mi toll tey lan nga mën a lancer conseil boo xam ne tey gisoon nga ko mu am ci réew mi te neexul a nga bëggoon ñu la ilaha illallah li ma gis mom kuko gis wax ci alquran mi ñuy bind ba mu tolok basan te do am faute do am dara 35 mètres allahu akbar li mom du caaxaan mais li ne boko bëgge bëggee bind panaam ñaata fan nga ko bind wa wa bu la ci bëgg mun bu tey waaw ñaari fan mu tey ko bind ñaari fan mais kenn du mëna ñew ci yow do am client do am dara wa wa yow li gën ci bu de lii de ñun ñoo ko gisandoo moom waaw mhm. lii moom gis bokku ci moom lii moom maa ngi koy doo gis nag gis naa li ñu bind ba tey de waaye lu tolloog lii moom mosumaa gis ku ko bind wax dëgg neex yàlla kon nag sama gars yi mbir maa ngoog yéen a ko doon laaj tey nag fexe naa bu loqarti ko indil leen ko ngeen gisal ko seen bopp parce que ñu bëri dañ ma doon demandé xanaa mënta def émission xanaa mënta def émission tey nag maa ko forcé ba mu def ko nag ku doon laaj waa léegi waa jàng yi